Abdou Lahad ne mu ngi sant bu baax ne sëriñ Abibu mii toog day seede ndax kër gi ne lépp luy kilifteefam ci wàllu diine lu jëm ci kilifteefu kër gi ci wàllu diine ne ci loxol sëriñ Abibu mii toog ci la nekk ne ñëw bii mu ñëw nii nag daayira soxna may yi at mu jot moo leen di yeewi ne lépp luñ fii def itam moo koy jiite ne loolu nag bokk gi ci la baax gi ci la waaye lu mu liggéey ci digganteem ak soxna si ci la ci lu ma mën a seede mais xaw ma ku ko ëpp pësteef ci sëriñ Touba ci mu ànd kook soxna may jaarale ko ci soxna may ne waxtu wu nekk soxna si yëkkati na ko mu yor taxi mbaar di bay du indi di jiite tool ya nee lu ko wax ne day xam ne mën naa nekk dem yëngatu ja indi ko mu ngi nii toog nee àgg na ci tawat ne maa ngi toog fekke ko soxna baalee nga fa sëriñ seexu naa nga fa ak ñeneen ñee ñu ne ko nee soxna Bali sax ko wax nee loolu dafa jar nit ñi xam ko ca moom sëñ Abib mii mënta wax loolu nee mu ne ko am na doom bu tudd ñokket nee 96 97 nee boo ko naanee rek da ngay jóg mu ne ko lu muy jar mu ne ko 17000 nee njëgg da koo jël du ma gis Serigne Touba di jëndi dara nee keroog la tàggoo ak sibiru nee loolu mooy pas-pasam. ñun ñëpp fekkee ko ne moom dina ko xal boppam xam naa ne moom foofu la nekk sëriñ Abibu ne sëriñ Xaadim Lo Gaydel mii nag ñu ngi koy sant di ko gërëm nit ku baax la di sunu wëllëre ne bu fekkee sunu jataay di sunu wëllëre ñun ñëpp day mel ni kon diggante boobu dama koy jël rek ne dénk la ko nga ñaaral ñu ci nga sànnam sàmmal ñu ko neen loolu rek laa bëggoon a wax loolu rek laa bëggoon a wax neen yow laay yaayi lépp sëriñ Abibu ne maa ngi nuyu mbokki taalibe fi teew yëpp di wax assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu ne sëriñ Cheikh Abdou maa ngi lay siyaare ak mbokk yi ma fekk yëpp sëriñ Xaadim Lo Gaydel sëriñ Mourtala Lo ak ñi ma fekk ñëpp ne kenn ku nekk maa ngi lay siyaare ci sa tur ak sa sant nee ni ko sëriñ Cheikh Abdou Bali waxee léegi rek ñoom ñii danoo doon nit ñu am wëllëre ñu am ngor ñoo xam ne du ñu jàpp di bàyyi mukk loolu nag dañ koo nàmp ci seen maam ji muy soxna may mun a nee soxna may kenn ku ne xam na ne cërub góor la yoroon nee wax na xam ni sëñ Fallou ko waxoon. ko ko waxoon. may naa siisu sëñ Tuubaa bi. may naa la cërub sëriñ Tuubaa bi. nee siisub sëriñ Tuubaa bi may naa la ko. ku ko toog bokk yow ku ko toog bokk nee loolu feeñ na. ñëpp gis nañ ko. nee bis bii nag moom. dañuy wax ni sunu bis la. bis bu nekk rek. la ko sabab. boo ko xamee. bu yokkee xam nga ko. bu wàññi koo xam nga ko. laylatul xadar moom ne yàgg na ci lislaam lool waaye ci soxna may la feeñe ñun bokki taalibe yëpp maa ngi di nuyu ñu sol ci nuyoo bi Serigne Mountakha nga xam ne moo fi nekkal Sëñ Tuubaa xalifa daal murit ak mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi yëpp rek di nuyu sëñ Abdou Lahad mi ak njabootu soxna Maymuna gépp sama sama sama sama waajur nga xam ne euh, ba ma ñëwee ci àdduna moo ma moo ma moo ma kii sëñ Cheikh Modou Fatou tudde ma euh, sëñ Touba Khadim Moustapha euh, ñu bari xamuñu ne sëñ Touba la ma sëñ tudde kon nag diggante yi su ma ñëwee fii rek def naa li war a def maa ngi fàttaliku benn bés boo xam ne bii daa ñëw fi Cheikh Modou Fadal ne ko kër ga dañ faa bëgg ab ab ab boo xam ne ab robinet lay doon Cheikh Modou Fadal ne ko léegi maa ngi yebal ñu di ko defar léegi daal di ci ñu daal di gas bi mu tàmbali xelli beneen bis bi maa ngi fàttaliku daa ñëw Daaru Manaan sees bàyyi Seex Awa Balla yenn fanaan fa waaye yàlla dogal nag ñëwul ca euh, demul ko soxna ko soxna Maymuna bi mu ko defee bañ bañ toogee ba ci gannaaw suba soxna si yónni ndaw ne ko boo ne ko ne boo demee ne ko si moom laa gis ku dëkk ci ab dëkk fekk fa doomu sëriñam te demul fa moom sëñ bi ne waaji waay waaji dama damay ñaan yow mi laa koy ñaan dama bëgg nga fanaan ba suba bu suba naan dem daarul manaan ñu fanaan ba suba sëñ bi daal di ñëwaat daarul manaan fi ci bàyyi saxo balla ne ko kat léegi ko yi ma tax jóg sama doomu sëriñ yi moo ma tax daa daa di fay daa di fay ba ngoon mu ñëw sëñ bi daal da ngay lii rek man xonk cooy rek di mag mu li man kon loolu diggante bu sori la soxna si nag moom suñu borom ko defal mu jàmbar rek lu mën a xew ci ak lu lu lu xew ci lu loolu noona euh, kenn du ko sant ndax ndax reeji maa ngi fàttaliku ne saan sama doom sama xarit si joxoon am wàccib liggéey ku dikki ni ko sigil rek euh, soxna maam Fati asafala soxna maam ku dikki ni ko sigil ndigaale fa day day rek euh, ndax mbégte moom suñu borom moo ko moo ko jagle Xaadimu Mustafaa ko jagle kon nag sant nañ bu baax a baax a baax a baax di ñaan rek taxawaay bi yàgg lool ba eh, eh, waxtu mu ne ma gën dolli ko nag ndax mbirum sëñ Tuubaa kanam la jëm seen tubaa amul tànkanaaw yu kanam la te kon la lépp xewal rek jërëjëf Xadim Moussa barke Sëñ lépp xewal jërëjëfate ndax sëriñ Tuubaa njabootam kenn ku nekk am na cër bu mu la cërale ci nga koy dundalal lislaam ni mu ko daan dunde moom nag mu bokk ci mu am ci cër bu ràññi ko bu màgg muy guddig laylatul xadr nga xam ne ci la suñu borom wàcce alquranul karim kon googu guddi genn guddi gënatu ko màgg moo tax moom ci nekkam daane wax ne bu ma kenn wutalati benn bis lu dul bis bi ndax bis bi suñu borom ma ko ko tànnal jaarale ko ci xaadimu rasul muy ab cëram ñépp it nangul ko ko rawatina ñu mu bokkal sëriñ Touba kon soxna si yàlla nañu ko yàlla fayal ndax yóbbaale na ci lislaam bi yépp ba fépp fu ñu tuddee laylatul xadri ci diine ji sa xel faw mu dem ci soxna matul Mbàkke bintil xaddim kon loolu taxawaay bu rëy la taxawaay bu ràññi ko la ah, suñu njaboot nag nekk fi ak suñu xalifa di sëriñ Mouhamadul Mahfous moom it mu jiite njaboot gi sëriñ ab sëriñ Cheikh Abdou mii di suñu jarbaat di suñu lépp di suñu xarit di suñu lépp moom it wuutuñu ci taxawaay bu rëy euh, coono bu ñu ci naroon a fekk moom dox na suñu digg ak loola ci lépp kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax ndax fii mu ne daana ci sonn naka jekk waaye léegi la coono bi gën a yokk ndax ni ko sëriñ Mouhamadul Mahfouz jiitale ci liggéey bi noonu it la fi taxawee taxawaayu na ci soxna si daan soññe sonne ak ginnaawam soxna Bali nekk fi moom itam di taxaw taxawaay boobu taxawaay yooyu yëpp nag moom mu boole ko wëlbatiku nag wuutu ci njabootu sëriñ Touba gi yëpp kon ñu ngi lay ñaanal yàlla mu yàggal la fi te may la ak wér nga yàgg koo taxawee. ñu ngi ñëw ci barab bii tey di siyaare si Abdou Lahad ak Soxna Astou ci bis bi nga xam ne noo ko bokk doon ci lépp ndax euh, soxna su tedd si nga xam ni moo sos bis bi. te doon ko def di ko defal sëñ Touba dafay lépp ci nun génnuñu ko ci genn wet ci wàllum ndey ak ci wàllum bàyyi mu am ci man mu am ci ñun nag cër yu rëy rëy wax naa ko ay yoon yoon yoon ci diggam ak ci lu seqoon lu jéggi dayoo loo xam ni raw na ak bokk ak xaritoo ak wóolante ak fonkante loolu moo doxoon seen diggante wax naa ko ay yoon yoon la naa fii ni yokk jumaay Tuubaa ji ginnaaw yàlla ci lam ñu soxna may la bàyyi koo dugg ci Cheikh Abdoul Ahad te ba mu ko ko waxee dafa daal di téeméeri junni ni ko li may tàmbalee ngi nii muy jumaay Tuubaa yokk yokk jumaay Tuubaa ji te loolu lépp nag booba yéene ko ndam rek moo ko waraloon ñun ñii suñuy waajur yu ñu jur eh, ci ci ci mag ñi lañ bokk waaye teewut moom la féetli woon lépp ba sama mag yi ma jiitu yépp soxna May mi moo leen génnee kon xam nga lool loola yàgg na te boobu booba sëñ Abdou ndaw la soxna si ndaw la kóllëre gu rëy gu dox seen seen diggante moo andi woon lii bis bi su masaa dëngal bañ koy defee daar Waxaat ak bañ koy defee Touba yëpp ba desee ay bis ba bu set sëñ Abdou dana xëy si seet si soxna si ba ne bis bi jàll loolal la ñuy feddali si di ko yeesal te ñoom ñoom ñii fi yàlla tegit muy Cheikh Abdoul mi li ñu war a dox lépp ñu ngi koy dox sunu kilifa gi nga xam ne moo fi nekk muy Serigne Sidi xam nañ lim doon ci barab bi cër bi ñu ko fa joxit lépp xam na ko amul lenn lu fi dox te du ndigalam gannaaw bu Cheikh Mawud mu taxa jàllee ci moom la jaar loolu mooy sababus ñu ñëw fii teew fi teewal koo fi teewal fi njaboot bi yëpp ngir fetli si kóllëre gi fas ko yéenee ànd ak ñoom ba lépp jeex jërë ngeen jëf